ngi noonu mbokk yi dimanche 31 octobre Fallou Ndiaye ak waa Ndiaye production ñoo ñu woo ca arène nationale ba daal di boole ñaari xale yu ñu gën a ràññee ci seen génération grand combat bi war a dox ci diggante Tapha Mbeur doomi parcelle ak Ada Fass gone Fass Médina Gueule Tapée drapeau jeu technique Mor Kankang booy yëmbal du xam ngeen leen bu ñu bëree mu neex bu ñu xeexee mu neex waaye ay bu ñu feccee ñu daal di jële ji Hercule boole ko ak armée bu ngéwél cey boobu combat waaye nag mbokk yi bu leen fàtte ni lamb ji nekkatul stadium Iba Mar Diop waaye arène nationale et que en lay doon pay activité sur seen affiche point com daw leen gaaw jënd seen ay code ndax 1000 francs rek la kon dugg leen gaaw ci seen affiche point com ngeen daal di cliquer événement Tapha Mbeur ak Ada nga bës acheter un code bu fekkee da ngaa bëgg jënd ak sa Orange Money wala sa Wave wala bu fekkee da ngaa bëgg fay ak sa carte bancaire da ngay bës connexion par mail kon nag mbokk yi bés baa ngi noonu dimanche 31 octobre ca arène nationale Tapha Mbeur Ada Fass combat des espoirs ak Fallou Ndiaye toj nga fi asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi amaan mbégte contentement yéen ñuy suivre sur Kewel Info kon niñ koy defee à chaque fois ah, Ada Fass Tapha mu nekkoon li nga xamante ni moom mooy ci arène nationale mu nekkoon combat boo xamante ni bari woon na tension combat boo xamante ni ñaari xale la kenn ku nekk am na foo tegoon sa bët Fallou Ndiaye Ndiaye production naan ko defati nga sa mënin ndax nee naa la képp kuy jàpp jour ba Ndiaye production jàpp nga xam ne borom événement yu yi encore une fois ñu koy encouragé bu baax a baax a baax di ko félicité franchement il est il a tapé allah Ndiaye production naan la rek sa yoon yàlla na gën a leer ci barke Seydina Mohamed ah di ñaanal ki nga xamante ne moom mooy Ada Fass ndax liñ koy wax xale la marqué woon na empreinte mais instant bi bokk na ci fullaam ak ci faydam ak ci jomam di ko félicité bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla ndam mi jikko franchement rien à dire bëree na wanewaat na boppam dañ koy jox mu nuyoo ñu dugg ci li nga xamante ne moom mooy combat bi Ada Fass maa ngi jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul joolax almisbah karaval maa ngi leen di mhm. dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy avant combat bi jël si woon nañ la fekk adversaire wax. nga ni man mbër duma diriger nga ni li fay am man maa koy def am ñu la xaw a tiital sa diggante ak Tapha Mbeur mën ngaa ñëwaat ci combat avant combat waaw combat bi daanaka gars yi yëpp mooy loolu dañ doon am xel ñaar mais man xam naa sama bopp man damaa gëm ne mbër du ma diriger si làmb te mbër du ma mës a diriger waaw mbër du ma mës a diriger. Mhm. nga am benn wax boo xamante ne dafa xawoon a touché sa adversaire. nga ni ko tey su ma ko soxloon suba suba am na ñoo xamante ne mën nañ ma ko kidnappé mu ñëw sa adversaire affaire boobu metti woon ko fan nga ko tegoon dafa am ñoo xamante ni ñoom ñoo la doon espionné fee wala lan moo taxoon nga wax. non loolu stratégie la rek ndaxte làmb am na ku nekk ak li ngay fi façon bi nga ñëwee moom mën na am stratégie wax leneen man am stratégie wax loolu. Mm-hmm. Mm-hmm, du dara. Mm-hmm. sa combat ak Ada Fass ñu gis ni a araf kii euh, nu mu tudd di ko encouragé nag bu baax a baax ndax de mérité wul mais nag liñ naan làmb moom ku ne koo ne maa mën nañ bàyyi ba dimanche tey nag Ada Fass mi nga xamante ni moom moo ko jël di ko wax rek du làmb yaa ngi ci kanamam booy nga franchement entraîné nga indi nga forme mais tey dafa nekkoon loo xamante ni du sa bés mais tey sa combat ba léegi ak ki moom mooy Tapha Mbeur ñu gis ni Tapha dafa ñëw dafa ñëw écurie Énergie bien vrai que ni daan nga ko mu indi état bu doy waar lépp sa combat gars yëpp nag ñu bari nag ki nga xam te ne moom mooy Tapha Mbeur lañ joxoon victoire ndax yow dem nañ ba sax xaw xawlaa tiital ñu ne poids bi gars yi poids bi lañ doon mais poids bi ñi naan doole la ñi naan mm, arafas dafa xaw a kii volume lan ngay wax ci loolu. non man loolu jaaxaluma ndaxte instant yi poids moo yor dama ko enterré dama ko liggéey dama ko liggéey sa waay tamit moom liggéey na. waaw jigéen na écurie dem Rock Énergie liggéey na inna inna état bu doy waar am na doole waaw am na doole bu baax waaw mais man dafa fekk ne man dama liggéey yaa booy barki Serigne Saliou daxañu duma duma dem fenn entraînement lekk tëdd nelaw barki gars yi sax doon duñ ma gis si mbedd bi barki sëñ Bamba ndax làmb fu mu fu ñu tolloon la waaw fu mu ñu tolloon dëgg la mhm. moo tax nga lëlu ndax gis nañ ne yow kenn du la gis fenn lëlu bi kenn du ma gis fenn média yi man du ma toog sa si média yi boobu maa ngi woon sama làmb di ko concentré wu. waaw lii rek lañ bëggoon tamit te yàlla jox nañu ko waaw ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax. Mhm. bala ñuy ñëw ci biir combat bi ñu gis tey ñi la indi waa Fass dañ cee bokk gis nañ ci soose ñu gis ne mu am benn taxawaay bu am solo Père Ibrahima Père Tafa Gueye lan moo waral loolu bés bi moom moo ko tolloon wala Ada Fass moom moo leen tendre la main. daanaka soose. suñu grand la ñoo bokk même koñ fii la dëkk Fass Père Tafa Gueye suñu papa la Père Ibrahima Mbaye bu may nekk xale la per Ibrahima bu may nekk xale jàpp sama bi écurie Fass maa ngi nekk maa ay 11 ans waaw jóge école di wàcc di ñëw foofu di seetaan wala Père Ibrahima Mbaye ku ma jàpp sama loxo ah, di ko ñaanal jàmm moom ak Père Serigne Ndiaye waaw. tey ñu gis ba tey ci biir làmb ji Ada Fass nga indi facette boo xamante ni tey am na sax ñu gën a surprendre ci Ada gis nañ la nga bàkk bàkk bu neex am confiance ba pare dal lan moo waraloon loolu dañ la woon victoire bi wala làmb ji tey moom moo ko laajoon. non deewuñu ma sax dañoo am gëm-gëm rek dañoo am rek ak lu ñu liggéey waaw xam ne échange bi ku taxaw suñu kanam rek incha allah dañuy fël rek dem. Mhm. tey ñu ñëw ci combat bi. ñu gis ne Arafas ci cadre bu rëy lañ joxoon favori Tapha Mbeur jox nañ ko tamit xeex xeex bi tey tey ñu ñëw nga nga kii ndànk nga léewtoo ndànk danga ko doon cenc wala dafa am lu doon jàng ci moom. non du ceeñ sax da doon lirge rek xam nga làmb bu nekk ak stress loo indi ci làmb tey lii la la bis bi tey lii la laajoon ñu dal ndaxte waaye tamit du cuune waaw moo tax ñu dal xool ko. waaw suñu borom ndam si koom. avant yàlla may la ndam ndax duñ ñëw rek résumé ko te bu doon décortiquer li nga xam te ne moom mooy combat bi Tapha Mbeur mi ngi féete gauche yow yaa ngi féete droite nga décortiquer ñu combat bi yéen ñaar combat waaw dafa féete gauche ma féete droite abi sifle gën suñu diggante ñu leetoo leetoo bu dib leetoo bu xaw a dëgër tuuti waaw instant ñoo ngi sorante à ñu jegante nag. buñ jegantee la lutte bu gën a bar waaw ma coxaas ko mu ñëw dóor ko ma daw jël ko mu dóor ma uppercut may dóor uppercut nag bu may génn laa dugaat moom dafa demoon damay taxaw mais dama génn dugaat dama ko enchaîné dóor ko plaqué. Mm. ba nga ko cokkaasee yow boobu da ko doon ubbil bunt ndax yaw xeex nga ko bëggoon indil wala da nga ko bëggoon bu la cokkaasee rek nga jàpp ko daan ndax ñu bari yow la ñu waxoon yow yaay favori ci li nga xam te moom mooy bëre bi. waaw gars jàpp daan rek lañ ma santoon. sant ñu may xeex eh, dama jàpp waa ji coxaas ko bëri moom jàpp ko daan ko. da doon daw xeex bi. non dawuñu xeex bi dañoo déglu conseil rek. Mhm. li mu mënu ak moom ak ak moom crochet tey. du box ñun dawuñu box dañuy bëre ko daan lay laajte laaj ñu ko dóor. Mhm. Arafaas nga daan Tapha am na ñoo xam te nag surprendre leen ndax komba bi dafa xawoon a jege ci sa boor. ndax demoon nañ ba benn instant sax Baye Fall mi mi nii xaw ma dafa ragal lool xaw ma nu mu demee noonu ne Ada Fass du bëre loolu stratégie la woon wala réellement yéen da ngeen a parewul woon. non du stratégie ñun chaque jour pare nañ. mais lan moo taxoon ngeen du leen bëri. mais xam naa dañoo ñàkk bañ a déggoon ci ay kàddu rek man moom xaw ma lu xew. Baye Fall da ragaloon dañ la waxoon. man mi si entraînement la ma sant mais leen yëpp. déedéet moom ragal la. jege bi ah <laughs> nan la demee woon Baye Fall musul wax fenn avance bu bëri. ba ku siit am na ko na ko indi wala audio wala vocal musuma wax ne àdduna. musuma dugg ci live Kelle euh, ba mu ba mu dalee am ba léegi. barke Seydina Mohamed loolu dama koy dégg ay ay def. nan laa lekk lekk sa avance mbër bu bëri ñu dund bëri loolu mënul ne de. damay dégg gars yi naan Baye Fall dañuy dund bëri loolu musuma ko wax fenn loolu gars yi dañuy wax rek. Fallou Sall Ndiaye Ndiaye la sant ma sant yaa ma gën a xam. maa moom mooy loolu garmi la mais mooy loolu waaw nit ku baax la quoi franchement. parce que ban dalee ànd ba léegi mi ngi ñuy tëgg mais mosuñu yoo gis ci moom lu naqari man nag Baye Fall la damay wax dëgg combat bi am na ci moom lu naqari moo tax ñu am ay problème ay petit problème mais loolu garaawul la baax na. Baye Fall bu Ada kii moom mooy lépp Ada Fass nga daan Tapha wax naa la ko am ñu mu surprendre am ñoom tey ni bettu leen ndax franchement tey moom da nga cartonné. Ada Fass yàgg Tapha Mbeur am kii da ngeen a bokk sëriñ yéen no non ñu dara. amoo leen foon daje yéen ñaar réellement. dayoo ñu fenn waaw maa ngi sant waa Kajoor bu baax. Ah. ay nekk sama ginnaaw maa ngi sant yàlla lépp dina leer ci kanam. nangu woo benn xewagul. léegi nga daan Tapha mhm. am ñoo xamante ni ñi ngi seen kanam ndax ñu bari nañ tey instant bi Ada dugg na. Mhm. mais Ada tey fan nga jëm. waaw làmb mu ngi kanam ay xale la mu ngi suñ kanam suba suba damay takkaat samay dàll fooy dem entraînement man sport laa am fàtte naa lii tey waaw tey bu ma suba damay takkaat sama daal dem entraînement xam nga leneen la nga waat sama sant yàlla bu baax. sant sant yàlla waaw. fu mu la samay morom man instant yooyu samay morom yëpp daan naa leen. samay morom yëpp daan naa leen def naa sama sama wan naa sama preuve daal waaw. waaw mais du ma laaj kenn du ma laa ma ngi suñu kanam. Mhm. te daan nga Ada Fass daan nga ki nga xamante ne moom mooy Tapha Mbeur tey boo amoon benn message boo koy jox bien vrai que ni ñaar doo ay noonu. Mhm. benn tàkkusaan moo leen boole tey boo amoon benn message boo koy jox en tant que frère lan nga koy wax. waaw Tapha borom baax la Tapha bu làmb ji taxawee ba mu jeex nii wax ma lu mu métti quoi koy seedal loolu waa borom baax la. waaw di ko ñaan rek suñu borom ba amaatee làmb suñu borom jàppale ko waaw. ci indi musique bu bëree bëri bëri. non indiwuma dara de man gis nañ la nga indi musique bu bëri. non indiwuma dara yaa wooy indiwuma dara. Mhm. mais na ay xale lañ. mais am na ñun ay xale lañ te am ñun toog si si euh, média di wax adversaire du ma tudd benn mbër. Mhm. mais am na ñoo xam ne tey bëgg nga ñu may la chance waat mag ñi wala booy safi man Ada Fass am lu mu wax sama staff encadrement ku wax rek man pare naa. Mhm. tey nan nga gisee journée Fallou Ndiaye bi. waaw Ndiaye tey moom gis na moom moom bëgg na quoi ndaxte lii la si ñun waaw ñun tamit kontaan nañ waaw kontaan nañ bu baax di nga ne la Fallou jeune la. Arafas man dama ne Fallou ma yóbbu lu ma lu ma teg nii Fallou la quoi ndax de fit bëreloo ma grand combat tamit di ko ah, moom jël ma bëreloo ma moo jël jël ma boobu waaw sama premier grand combat am fit boobu di ko sant bu baax. risque la jël ah, bu baax a baax moom sama carrière dama waxul rek dama soxor daf si joué daf si joué waaw ah, di ko sant bu baax a baax. yi mooy sama huit victoire. xaw ma dama ñaara ah, la. nga def ñaar ko. neuf yaay booy. ñaar la huit victoire la am. huit la am huit ah. nañ ci yow ndax bu neexoon tamit nga tëjuwaa nekk yi dañoo ñëw. nga ni kaa leen ñu mel ne kontaan nañ ci yow encore. Kewel Info da ngeen di ñëwaat instant yii dañoo sonn da ngeen di ñëwaat ñu def beneen émission. dene bëgg si yen gën ñun xale làmb ji lii lañ am tey ji yéen ñun ngeen am ñun tamit yéen lañ am tey ji yaa yaa ñuy wane fépp gars di ñu gis di sant ñëpp ah du ma limee rek damay juum. Baye Fall nu mu demee. <laughs> Baye Fall Ada Fass nekk tutànk la waaw bu muy nekk tutànk la. Ah. kontaan naa ci yow. waaw bëggee naa la ni tamit jaajëf. bés baa ngi noonu mbokk yi dimanche 31 octobre Fallou Ndiaye ak waa Ndiaye production ñoo ñu woo ca arène nationale ba daal di boole ñaari xale yu ñu gën a ràññee ci seen génération grand combat bi war a dox ci diggante Tapha Mbeur doomi parcelle ak Ada Fass gone Fass Médina Gueule Tapée drapeau jeu technique Mor Kankang booy yëmbal du xam ngeen leen bu ñu bëree mu neex bu ñu xeexee mu neex waaye ay bu ñu feccee ñu daal di jële ji Hercule boole ko ak armée bu ngéwél cey boobu combat waaye nag mbokk yi bu leen fàtte ni lamb ji nekkatul stadium Iba Mar Diop waaye arène nationale et lay doon pay per publicité sur seen affiche point com daw leen gaaw jënd seen ay code ndax 1000 francs rek la kon dugg leen gaaw ci seen affiche point com ngeen daal di cliquer événement Tapha Mbeur ak Ada nga bës acheter un code bu fekkee da ngaa bëgg jënd ak sa Orange Money wala sa Wave wala bu fekkee da ngaa bëgg a ak sa carte bancaire da ngay bës connexion par mail kon nag mbokk yi bés baa ngi noonu dimanche 31 octobre ca arène national Tapha Mbeur Ada Fass combat des espoirs ak Fallou Ndiaye nga fi